gannaaw ba mu njëkkee tegi daan groupe Walfadjri ak lépp li si tukkee taxul bi ministre xool fi muy teg tànkam ak it indi jooyanti si anam gi mu war a jëflanteek média yi nekk si réewu senegal ñëpp a jógoon doon ŋàññi lu ni mel waaye defatina mëninam juróom benn weer kott lañ si teg mu def lu gën a yées bila yoon moom yamul rek si tegi daan ak dagg signal licence su télévision la nangu mel ni kuy jël bakkani doomu aadama nii nañ ko mën a tuddee lii di mbir mu doy waar boo xam ne dafay faagaagal liberté de presse et d'expression di sañ-sañ bi journaliste bi am wax li mu xalaat wala bind gis-gisam si doxalinu réew mi journaliste yooyu nga xam ne ay atti atta ngi nii ñuy bay seen waar si lépp luy jëmale kanam démocratie bu réewu Sénégal ak it suñu état de droit bu ñu sax nattee mbir mi si beneen fànn boo xam ne dafay ñeel wàllum koom ak nekkinu doomu aadama yi njeex yi doy na waar lool ndax tey jii ñii ñu nangu seen xëy sa wal fajiri am na mbooloo bu takk bu nekk seen ginnaaw ñoo xam ne si ñoom dong la ñu wékku ñu leen di jàppale sa la ñuy am mu di soxna walay borom kër ay doom walay jegeñaale wala ñoo xam ne moom dañ leen doon dimbali rek te yàlla tax jëw jëwriñ ngi jël dogal boo xam ne njombe gi mu def dayoo bi kenn xamul ni mu toll ndax nar na tas yaakaar yu bëri mu mel ni daal ministre bi leen dong la nangu mooy ëttu taskatu xibaar boo xam ne day woyal ak i tattagal nguur gi mel ni ku jàkkaarloo ko buur bi buum di bummi ñu lay xamal nag ni da nga yegg si si bile keppaax jamono goo xam ne fekk nañu liggéey lu ama am solo si wàll gi lii rek dafay firndeel ni li nga jàppee média du noonu te say façon ak i jëfin dafa sax wuuteeg lool tolluwaayu jamono média yu réewu Sénégal duñu nangu benn yoon la yu ñuy rëddal fi ñu war a jaar di leen dajalek di leen tong-tong ngir a ñuy jaamu soxla ay doomu aadama kenn mënul noppiloo waxkat koo xam ne liggéeyam mooy yee askan wi jox leen ay xibaar yu leerte te wóor te sax bu dee ni def nañu njombe ñun am nañu ay kilifa yoo xam ne ñoo ñu war a tegi daan mu di ñi ñu duppee régulateur de l'audiovisuel te sax lay bi mu joxee dafa woyof lool Walf bu jalgatee yoon sax war nañ ko tegaat si yoon si yeneen i anam waaye jël li di licence moom ëpp na lool yëf yi sax gaa du mbirum mbokk donte moo jiite bi la secteur waaye mën nañoo jàpp ni moo ñu njabootee te faat ku bokk sa xeet lu ni mel moom du dëgg du yoon jëwriñ ji loxoom bi diis na lool muy Moussa Bocar Thiam li mu def kenn xaaru ko fi woon yoon lii dafay wane rek ni mënut a ràññee janjak joor groupe Walfadjri mi nga xam ne lii mu tàggat si li mu journaliste kenn xamul nu mu toll ay taskatu xibaar yu xarañ lool ñu leen di dégg fu ne rédaction bu ñu jaar wane seen bopp ndax rek liggéey bu am solo ba nga xam ne moo am sa boobu la kër taskatu xibaar monsieur le ministre dellu gannaaw ba tey jot na waaye nag war nga baral yëf yi fa rek ba bañ a duggati si yi la xeetu guuta ndax li nga def lii leer ba leer mooy ñii la jege sopp la lool sax li ñu bëgg mooy nga génn si suñu mu gën a gaawee réewu Sénégal lu ni mel la soxla te sax bu weesoo loolu ay junni junni sénégalais ngi nii wal fu dong la ñu gis seen bopp tey jii boo leen xañee lu ni mel ameel nga leen àq bu rëy mënuñu wax démocratie si réew moo xam ne journaliste yi amuñu liberté di sañ-sañ def seen liggéey si anam gañ ko bëggee tey ji lenn rek la ñu mën a jalgati mooy suñu étique ak suñu déontologie di mbir yi nga xam ne ni moo tëddal charte suñu métier ñun ñi coordination des associations de presse di CAP lëkkale CEDEPS CJLS CORED APEL SYNPICS e CETEPAS URAC ak UNPGS liñ la bëgg a fàttali rek lenn la di ko fàttali it képp ku nar a jóg di faagaagal taskatu xibaar yi moo di ne duñu musa nangu ñu ñuy tuutal si ay mbir yoo xam ne ni dëppoowul ak yoon bu dee ni nag da am mission boo bëgg doxal fii si réewu Sénégal jàppal ni duñu musa dellu gannaaw lu ni mel bëggatuñ ko gis réewu Sénégal tëkkuwuñu kenn nag dañu leen rek bëgg a yëgal ni képp ku jóg bëgg ñu neewal doole fii nga ñuy fekk duñu musa nangu lu ni